Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 26 août 2024 suñu fa jógee dañuy dem fële ca commission d'organisation Magal Touba ginnaaw bi nga xamante dañu lettre pour que ñu daal di leen jëlal en salle. ñi nga xamante ni délégation officielle bi ñu invité woon ci Magal Touba bi pour que ñu dal ci hôtel boobu di King Place kii nga xamante ni moo nekk foofa ca palais de la République du Cheikh Omar Diagne yor li nga xamante ni direction moyens généraux dafa daal di refuser li nga xamante ni mooy comité d'organisation bu. Magalou Touba bi nga xamante daf leen demandé pour rationalisation des dépenses de l'État ginnaaw lool nak ki di Cheikh euh, Cheikhouna Mbacké daal dina ci indi ay leeral nañ déglu ji Serigne Cheikhouna Mbacké delu si ñu am nak luma bëgg a dama gis euh, ci fan yi am ben lettre. bu futé dem internet Lettre bi man ma bind lettre bi ñuy tontu ci turu commission relations extérieures cachet relations extérieures non président de commission relations extérieures pratique boo xamante ne bii fa depuis 2009 biñ créé li nga xam ne commission relations extérieures muy benn ci commission yi Je ci comité d' organisation bi man ma commission relations extérieures et religieuse depuis 2009 qui a de la xamal appui logistique de la présidence de la ko defal ma jël euh, sama ak yi nga président euh, de comité d'organisation. comité ni yenen commission yi comme commission communication ak yenen di defé ay correspondance ca yeen seq ak ñenen non la commission relations extérieure defé ay correspondance yo xamantene bi bii yëmut rek ci demande appui logistique bi nga xamante bi présidence dañu daan jox ay euh, chambre di ñu jox ci parc automobile bi juróom-benn oto léeg sax am na at moo xamante ne bii ñaari at yoo xamante bii seeni oto dafa maanaam euh, nekkoon en panne ñu luyee ay oto jox ñu loolu comité d'organisation bi xam na ne am xam na ne dañuy am ay gan te bu amee ay gan di leen dugal ci oto di leen andi di leen jaarale ci oto ci hôtel ba kon man loolu su ma ci amutoon ay sañ-sañ ci liñ ma ci toppatoo di ma ko jiitaloo pour ma seet nam baaxee di ci diisoo ak ki nga xamante bi mooy kilifa gi ko yor la kon du ma ko def

li nga xamanteni moy ben benn division foofa ci communauté mouride bi ndaxte ginnaw loolu dégg nañ ci ay cadre yo xamanteni yu wuute la ki di. Cheikhouna Bara Mbacké nag indi na ci ay leeral ginnaaw Cheikh Omar Diagne moom aussi xam nañu position am jëmale ko ci tarixa yi ndaxte ku yàgg xeex ay tarixa la musul gëm tarixa muy murid di tijaan di laayeen en tout cas daf ko yàgg xeex kon tey su ñu ñëwee ñi ne nañ leen jëlal en charge seen ay invité donc suñu nee dafa refuser loolu jëmale ko daal ci ay rationalisation des dépenses de ça gis nañ daal joué na lii nga xamante ni daal mooy polémique foofu nga xamante ni mooy Touba Mbacké kii di Serigne Cheikhouna El Hadj Bara Mbacké daal dina ci indi ay leeral indi nañu ay contradiction ko ci li nga xamanteni ne lettre xam nga li que a avons ñu gis nit daf doon attaquer ci kër di attaquer Seigne Touba di ñu fal ministre ko ci palais de la République fa Cheikh Abdou mi nga Touba ko fa indi fa bureau ñu ko dafa contre contre l'islam koko jël responsabilité

te loolu doy waar la te loolu lu yéeme la kon nag loolu dañuy wax ne responsabilité bu rëy la bu def boo xam ne lu garaaw la kon nag ñi ngi wax ne ñun murid yi nañu xam ne sëñ Touba la am suñu kër yi nga xam ne ñoo ko moom Ndakaaru ñu am ko fa bu màggalu jot jotatee nañ ko jël jox ko comité organisation bi ñu mën cee dalal gan yi te ñu xam ne état bi seeni cuune ak ba ñu yoonu murid chaque jour mi ngi feeñ Cheikh Omar dañ ko war a dindi ci poste bi rapidement dañ ko war mais duñ ko dindi parce que ñom ak ñom lu mu def neex na leen parce que ño bokku lu ñu def ci souf loolu lu garaaw loolu doy war la te lu ñu yëg la parce que tay bo xolé ndox mi doyul euh euh inondation yi solo nañu euh dëkk bi kenn lo xamne taxawu nañ ko dëkk bi amul du ceeb yi ñu doon jox yépp dindi nañ ko loolu lu doy war la te lu mata xol la li nga xamne état bi musta jublu Touba musta taxawu Touba mais nak tay feñ na ci gën na feñ parce que tay ku wax feñ yóbbante siiw kon nak ñi ngi wax ne Euh, sëñ Abass Abdou Khadre wax na wax ju am solo ju yéeme parce que waxaala ñaari wax la ko wax dane ko euh, dane nañu xam ne lu jëw sa loxo dafa jóge ci say loxo ñëw ci sa loxo kon na xam ne suba dafiy jóge muy benn deuxième bi ci topp mu ne euh, nañu xam ne suñ borom moo ñi dane ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli bu leen mayee nag bu ngeen santul mu mbugal leen dafa mel ne Sénégal dañoo dañoo may dañoo ñaan ñu may ñu santuñu motax ñu indi ñu mbóol go xam moy état bi nga xam mo fi nek ak seeni kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo polémique bi nga xamanteni ni juddu na foofa ca comité d'organisation bu Magal Touba seen diggante ak Cheikh Omar Diagne ki di Abdou Lahad sek Sadaga mom dafa génnee ay griffam jëmele ko dal ci ki nga xamanteni moy Cheikh Omar Diagne ginnaw dafa mës woné wone position jëmale ko dal ci contre lepp lo xamanteni tarixa la donc japp nañu ko dal li nga xamanteni dal moy ki kii di. Euh, Abdou Sek Seck Sadaga yëkëti na ko jëmale na ko daal ci li nga xamante ne lettre bi nga ko ko Omar Diagne ginnaw bu rationalisation des dépenses de l'État moo loolu